donc si suma mu ne ma man de dama nekk kaw waaye maa ngi ñëw ma kon fii wax ak ubbi la moo li tax nag amuñu jafe-jafe fii nga ma taxaw yàlla ak sonn si bu dëkk Kaawaan sonn si moo jóg volontaire ba bassin bi fa mu ñu fettan fettan waaw kon moom noo ngi leen gërëm si Kaawaan soxna kan la gone yi la gone yi. Ah, jeunesse jeunesse de ah, ah, la JPS. gone yi gaawaan ci boppam dañoo jóg takku dégg nga séntu wuñ ci xaalis séntu wuñ ci dara. pour defar seen dëkk. Hmm. li ngeen def nag lu rafet la lu baax la am na euh, dool suñu xel. dolli nit yaakaar. jërëjëf. Hmm. régime fi nekk yàlla ko yàlla. man hmm. am na yar am na tekki. te jublu lii mu jublu. yaakaar naa liggéey kaw la eh, liggéey Sénégal rek la jublu. Hmm. moo ko ak ministre le maire bi ngeen jublu ko. lépp lu mu kaw la ngeen yóbbal ko ko. parce que ñun ñoo ko fal. dara ko lu dëkk kaw la. fii la juddoo. bi la juddoo kon boog yaakaar na lépp luy liggéey Kaolack dina ci taxaw. ñeen hmm. jàppale ko yéen état bi la. parce que loolu loolu loolu rafet nañu ko li nga wax. waaw li si daal sama xel. waaw li nga wax ci li jeunesse bi def. waaw kii kay wax may ci journée bi. dama xëyee tey jóge yi waaw journée nationale de nettoiement. waaw président woote ni askan wi nañu jóg. ñëw jàppale ko ci liggéey bi. ñu ñu organiser defar nettoyer génne caniveau yi pour lii bañ a am askan yëpp nangul ko ko defal ko. bu ñëwee nga ni ma fii li ñu fi def yi ñoo ko def mm-hmm. lu may rafetlu la luy daal sama xel leneen li dama ñëw fii ne mbirum inondation bi li ñu ciy dimbali bu ñu ci seet maire bi wala état bi wala keneen bu ñu ci seet bokk pouvoir wala opposition mhm. mbiru askan bi président bu wootee mhm. ni engagement citoyen la woote mhm. dafa bëgg askan wi génn woowu ci waa Pastef woowu ci waa opposition wala waa pouvoir dafa ni askanu Sénégal laa woo ñu yow jàpp dama bëgg boobu liggéey ñu liggéeyee ko fii parce que quartier bi bu ñu amee inondation ñuy génn

jafe-jafe ci kanam bu jaaxle rek ñu am problème def ñu ñëpp sama rek ñu dafa am instruction yi dañ ko joxe woon ñu ànd def visite de terrain nga def le lendemain man ak ak doon olas ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk le service régional ñu ànd defaat visite de terrain mais aussi def réunion instruction yi nga xam ne moom la joxe je pense que c'est le lieu wax xool ndax lan lañ ci def fan lañ si toll parce que sama bopp mooy de suivre d'évaluer le contrôle donc yow yaa ngi man maa ngi si donc loolu moo tax toujours ñu génnaat bi bu ma xëyee peut-être dama sori waxante waxante après am na di nga def mais mënoo matal parce que actuellement tàcc boo dugg donc def mooy nga gën a incité les secrétariat de base ñu gën a farlu ñu accéléré gën a farlu nit ki ngir mën a soulager la population. c'est ça. monsieur le ministre monsieur le ministre monsieur le ministre. monsieur le ministre. 52 ans. fii avant ñu koy notifié. suñu dëkk. mooy bërëb bi moom mooy si ma ci dëkk bi nga xam ne muy taw. fii may wax yow nii ñu gën a sonal am on est là. fépp man maa dugg. égo yi nga xam ne mu ngi bassin. war nañ moo bëri nga xam ne dañuy def commencé impacté bi ba pare. maa defaat deux jours canal. mu xam état. monsieur le ministre. kii li mu def nekk ci kañ. donc dara. docteur dafa xaaral dafa am fu loo. docteur seetal soppali sax. boo ko daanu ñaan bi ndaw ni mënul def. nekk ak monsieur le maire ñëpp ñoo mun nekkal ñuy bay ñoo koy encaissé du tey cinquante deux ans xam nga lépp. ko jamono Macky Sall kon duñ ay xaar kii mosoo ci dëkk bi suñu maire ay responsable la ñu wax ku yow six heures du matin añu ma kii fi la ma fekk sama grand frère préfet bi mu fi ñëwee xar xar xam nga ñu ko préfet bi mu fi ñëwee ànd ak équipe bi ñu ko wax lañ ko wax égo yi tànka nawet bi jub si wut ñu préparé égo yi wax ko duñ jóg ci lii parce que bassin bi dafay recevoir mais li mu recevoir day jar ci ay kon kar yooyu bu mënee dem ba ñënte jël problème problème kenn. monsieur le maire parce que monsieur le ministre monsieur le ministre monsieur le ministre monsieur monsieur le ministre. fii dama fi bëgg mooy bëgguma fi xeej ak seen bëgguma fi division bëgguma divergence bëgguma ñii naan damay bàyyi mbiru askan wi la ndox mi war nañ fanaan tey bii parti wala parti ñëpp fi nekk na ba ñu am ay malaat yow jaw li ngay def continuer honorable bi ma fi ñëwee mu ngi fi yeneen ñi fi nekkoon jeunesse bi war nañ leen pardon honorable monsieur le ministre ko indi muy lakk da ndox mi nu mu mel ak dafa vert ak dafa jaune kenn dootu ko toppatoo dañu jëm jëli ndox mi rek fay fay lakk dafa am ay jafe-jafe responsabilité dinañ ko situé. monsieur le ministre yi benn première taw la dañu ciy jàngat dama ñëw ñu constaté li ñu fi woo daaw ah. lan lañ ci jot a def ak lan lañ ci defoon li ñu ci deful ma xam lan moo tax defuñu ko. ña ko deful man ma mën a interpeller leen waxal ñu def. monsieur le ministre. dama bëgg ñu trouver une solution rapide. monsieur le ministre. monsieur le ministre. démb laa fi jógee demoon Touba ah suñ ko waxee ma ñëw na tey je pense que Kaolack moom la gën a bokk ñu Kaolack infrastructure yi mi ngi fi xanaa sëf coof ak parcelle mais leneen li ci des li ma la mën a assuré. daf fii nii seen

Ministère, euh, ministre est bien arrivé à Kaolak. Après qu'il ait écouté euh, sa visite à Saint-Louis. Non, bah les